Euh, ñu ngi fii nii ci HLM 5 lu waral suñu teewaay lu dul leen mooy faatub Matar Ndiaye ki nga xam ne xew-xew bi amoon na démb ci samedi bi fii nii ci HLM cinq ñu ngi ni nekk ak waa këram ne leen laaj ci ban anam la faatoo ak kan moo ko faat ñu ngi nekk ak fii tamit mooy xaritu papa mu ngi tudd Mamadou Diouf Mamadou Seck euh, salaamaaleykum papa. maaleykum. bokk ak yéen ñëw bokk ak yéen tiis gi ak nakar gi gis na seen doom Matar euh, dañ koo faat depuis démb. maanaam moom ci ban anam la faatoo. waaw anam la faatoo mooy dañ ko boom rek te ko boom yàgg da ko menacé. bon d'après les dires parce que xale yi fa ñuy tasee ak di defante yow doo ko fekk en en général. bon xale bu calme la woon nag parce que man maag papaam ay xarit lañu. xam nga maag papaam ay xarit lañu. bon euh, ay ay xarit lañu quoi. Euh, wax dëgg yàlla ñooy nekk saa su ne mais nag da di lu mbir moo xam ne ni bu xësee am euh, duñ def lu di ko naqarlu di ko déplorer parce que euh, réewu Sénégal réewu jullit la. moom lan leen boole woon. non li leen boole sincèrement nag xaw ma ko parce que xale yi fa ñuy tase ak di defante seen mbir mag ñi duñ ko fekkee en général parce que heure boobu ñun fekk ñun ñu tëdd. dafa ñu dul ñëw constater les dégâts. waaw mais nag ki ko boobu moom c'est un habitué des faits waaw parce que c'est pas waaw parce que dafa rayoon nit rayaat nit xam nañ ko assassin lañ koy woowee Mohamed la tudd mais assassin lañ koy woowee ñëpp xam nañ ko fii ci HLM euh, wax dëgg yàlla c'est un habitué des ci grâce présidentielle bi lañ ko génnee xama ci grâce su coronavirus bi bi muy génneeg léegi ça doit faire au minimum trois mois comme ça waaw léegi nag. Euh, yàlla dogal euh, mu mu mu mu faat ko ci guddi ajuma gi ci guddi gi ajuma ci guddi ñun bu ñu xëyee samedi démb la ñu yëg mbir mi waaw. actuellement jàpp arrêté nañ ko mu ngi police HLM fii mu ngi police waaw. bon famille bi moom d'après li ma bàyyim wax moom il compte aller jusqu'au bout porter plainte parce que aussi ñu rey sa doom rey sa taaw. du mbir mu du mbir mu mbir mu neex du mbir mu yomb xam nga du nekk mbir mu neex du nekk mbir mu yomb mais nag ci xam nga sant ko borom bi daal waaw parce que doomu aadama buñ ko boomee moom yàlla dañuy dañuy def ñu am yaakaar ci moom bu baax a baax a baax a baax baax a baax waaw ñu am yaakaar ci moom hmm? xale bi li ma mën a seede ci moom mooy calme waaw ndax bokkuñu kër maag baayam ñoo bokk fi ñuy liggéeyee waaw euh, te itam euh, dégg naa ci ci ci waa jàkka ji ak dégg naa aussi ci ay xaritam ne daan na julli ji jàkka ja xam nga bon te puis de vue ñu daan naa ko gis aussi bu calme la woon loolu daal laa mën a seede ci moom bu calme la woon moom am amul woon benn euh, muskila waaw. d' accord waaw ñu ngi nekk ak fii ak papa yi mooy Matar Ndiaye mooy Ousseynou Ndiaye. asalaamaaleykum papa. waaleykum salaam wa eh, ñu ngi ñëw fii bokk ak yéen tiis gi ak nakar gi. gis nañ démb xew-xew bi barki démb ci guddi la am maanaam ndax mun nga ñëwaat ci xew-xew bi nu mu nu mu amee woon. xew-xew bi de metti na lool ku ne mettiwul da ngay wax lu la neex. metti na lool lool lool lool lool waaye yëpp dañuy dellu si yàlla ndax ay jaam lañ mettit bu mu ñu teg rek yàlla nañu may xol buñ ko muñee si barke yonent bi sallallahu wa sallam man fekkew ma xeex bi. man daa tëdd naa ba une heure et jàpp deux heures moins ñu ñëw ne ma jam nan Pambata boobu nag si laa génn dem toog si terrain ba toog fa lu yàgg ba si suba gi ma gis sama benn copain dem di ko wax ne ko ah Pambata rey nan ko mu ne démb coow bi yëpp fii la ma fekk coow bi yëpp fii démb yëgoo ko ma ne ko man yëgoo ma damay teel tëdd ñoom daal dañuy histoire ñoom ñaar kenn yorul paaka nag ñu histoire xeex ba noppi ba ñu àtte leen sama doom dem taxaw fee si bunt bee beneen kër ga ne moom mu daw dem wuti siso bu mag waaw siso tailleur yi bu mag mu dem wut ko bu mu ko wutee ba noppi ñëw fekk fii sama doom taxaw sama doom yow am yow bu dara mu waaw noo fee si taliba la xewee mu jam ko benn si kanam ak ñaar si dënn mu daanu mu ne ko newoon naa dinaa la rey rey naa la bii mooy ñetteel nit bu mu rey nag waaw ñetteel nit bu mu rey waaw trois personnes bu mu rey da ko yàgg tëkku rek moom moo yàgg tëkku li ma dégg si ñi ñu wax ko moom moo yàgg tëkku dafa yàgg tëkku booy bi da ko yàgg tëkku yàgg na ko ne dinaa dinaa la boo def naa la way ba way na ko nag baax na bañ dem si yàlla yàlla moom dana àtte lépp waaw yàlla dana àtte lépp moom euh, dégg naa da doon jéem a daw jàpp nañ ko si yoonu Kaolack bi mu ngi si police bi démb bi ma ne police bi gis naa ko aslem waaw tey dafa dama am rendez-vous foofu à 16h la ma vendu à 16 ans waa ñoo ma woolu tey waa pour def PV xaw ma def nan plainte ba joxe duñ def leneen xanaa du duñu fayantoo duñ def la def nan plainte li des nag ñi bàyyi si loxo yoon bàyyi yàlla xam ne yàlla dana àtte lépp rey na ko suul nañ ko ëllëg yàlla dina leen taaj ñoom ñëpp ku nekk mu àtte la waaw yàlla na leen taaj ñoom ñëpp ko nekk mu àtte la waaw hmm. Hmm. metti na ma lool metti na ma ndax aslem léegi agression yu bëri na fi lool aslem bañ nañ ko ba liste rouge lañ ko placé fu mu nekk nii metti na war nañ jug nag si xale yi naan sàngara ak rayante dong lañ fi nekkee naan sàngara rayante te loolu baaxul waaw nit da ngay xool lu baax ak ku ñu baax nga ànd ak ñoom waa kenn mu kenn duñu ko fayal nag du gouvernement du dara ñun ñoo koy faj gouvernement bi jàppale ñooy taxaw faj ko gouvernement bi jàpp bu ñu ko deful nag ëllëg dinañ gis lu gën a garaaw li